est-ce que jël nga garab ba mu la dalee ba tey. jël naa paracétamol. paracétamol kese nga jot. non non des na aussi jël naa ay garab wolof. Sori baal ma de démb xam naa sonal sama wàcc nelaw dara. ok bu wax loolu cepat tafut ngal marik ma ini di dem dakar uma for for non do ni yo bulan ga dem poste sante bi fay ma ci bi metti na torop ay yalla ba yalla ya, iya ba iya ci ron ma copine ko Comba ñaari semaine gi suba la yaa mën a bàyyi ñëw. kenn ma ngi ma mi juróomi fan ak damay wàccu rek may def ay frisson ak ay mo de tête. frisson ak maux de do je yo da nga mi fièvre. nga jël nga garab. ya am na saafara bu ma jox de. dafay na tek jël na ko.

Moussa ah, Maymuna na nga def. may fi. gëj naa la gis. maa ngi fi ya waaw Maymuna ani Abdallah gëj naa ko gis. may fi mu kër ga. ba mi ci jàmm. ba mi ci jàmm bu alhamdullah alhamdullah dama set ci won sax Khady sank ni ah Khady jël. wa moom la set ci won sank mais hmm. ja febar na de. Khady jël. Khady jël febar na trop. maay xool température bi mais c'est trop élevé foog mu dem poste de santé xaw ma nag lu ngeen di xaar mais foog ngeen yóbbu ko hôpital mu consulté wu ndax sonn na trop trop trop. may mun a yóbbu Xadijatu hôpital te xam nga yow ni mu demee xam nga na doole amul. waaw dëgg la waaye nag faaw yu jàpp si parce que moom jigéen ju wérul la elle est enceinte te instant yi ni tamit état am avancé na. foog ñu yóbbu ko consulté ko nag parce que wu baaxul ci moom baaxul ci doomam. noonu bàyyi lépp ci loxo yàlla rek dem di jënti yàlla baax na ñuul ma Abdallah bu baax allo waa Daouda man la kañ Daouda nan wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Daouda yàlla mooy bind nit nu mu ko soobee te moo koy jëlaate na ko soobee ba tax na Daouda yàlla mi bindoon ndeykat yi jëlaat naka ca na mu ko soobee Daouda ndeykat yi dem na deewu Xadi métti woon na torop mais li ma gën a métti c'est de ma booy bi ma infirmier bi waxee ni ma pali moo ko rey li jóge ci man xamuloo ko sax imagine toi li mu tëdd toog fii yëpp elle aurait dû faire des consultations prénatales bu demoon defi consultation yooyu noonu dañ ko xamal ni ko dina am trois rendez-vous yoo xam ne bu ci nekk daañ ko jox une dose de traitement préventif li mu tëdd fii nii yëpp toog ma yaakaar ni xaalis moo koy faj ndekete na traitement est gratuit. copain nekkul sa faute fii village bi ñu nekk yëpp pharmacien fi nekk yëpp kenn def consultation prénatale booy gis nga benn affaire dafa war a am paludisme dafa war a jóge suñu dëkk bi ñu nekk nii partout au Sénégal dafa war a changer paludisme jóge fi gis nga lii dinaa ko xeex nit mu yàbbi

Oh, oh, oh si biiru la. si biiru la kay. si biiru xanaa kenn waxu la man rek ko bi fa wala yow nga fi. a yegg ah waay déedéet waaye itam kii waroo koon ba mel nii gis nga day rax si biiru boo leen yéexee jóg rek mu mu rax leneen mu ngi nii rax na rax na yoo xamante ni kenn xamul fu fu ñu koy lijjantee. baa yaa ngi tane ba ah laa xawla wala xawta illa ah soxna day wax dëgg yàlla. Mhm. Mhm, mhm. Euh, soo demee ca kër ga. comme nanguwul lekk. nga defal ko ruy. boo defee ruy ba mu baax. nga sotti ci lii ma lay jox. bu lekkee ruy bi ba noppi. nga sang nga raxas yaram ba mu set. nga jox ko ci mu naan ñetti góox. bu ko defee rek yàlla dina la ci def barke. nga góorgóorlu lekk dégg nga. weexal gi ñaata la. yow day sama njaboot mi xanaa ñaari junni rek. ñaari junni waaw xaaral ma jox la avance bi. ah ma avance la mu ñëwaatee mottali. avance su feebar fu mu ah amul fenn kay waaye dëkk bee nag. boo ma teeloon ndox avance ma avance samay saar de. dëkk bee mit rek ah bu dëkk bi naka dee nga teel ma ko ma faj faj kii ba noppi nga naan may avance. six mille la ñuy daal su ma ñëwaatee jox la quatre mille. Ah, bu ñëwulee damay damay retiré ma fi defoon de. dana ñëw bu ah waaw baax na dana ñëw mbokk yi jigéen bi nga xam ni dafa wan lor ñaata yoon la war a jël garab bi nga xam ni moo koy aar ngir mu xeex paludisme huit la cinq la wala trois la.